dem fële ca euh, Ayib Daffé mi mandataire euh, Ousmane Sonko moom itam démb demaatoon na ca buntu DGE toogaanu leen bu fekkee pare nañu dellu si première jafe-jafe bi ñu seetlu mooy bi ñu yegsee capitaine bi ñu fekk dane dafa jot ay instruction yoo xam ne dañ kon nañ xaar bala ñuy xool ndax ay Daffé day dugg wala du dugg bi ñu xaaree ab diir lu toll ci fukki waxtu ak juróom ci la ñu ñëw daane Ayib Daffé na ñëw euh, bu ko defee ñu recevoir ko waaye buy dugg du àndaale ak huissier bi loolu mooy première jafe-jafe bi ñu constaté parce que kenn amul droit ab huissier ñëw ci biir euh, administration ni day dugg ci kër wala day dugg ci benn bâtiment administratif ñu ne ko doo fi dugg kon huissier bi duggul dugaluñ ko dafa xaar Ayib Daffé ci buntu bi bi Ayib Daffé génnee nag li mu wax leer na nee na le directeur des opérations moom moo ko recevoir bi mu ko li mu wax dani ko ñun communiqué bi ñu defoon ñu ne ñoom ci seen i communiqué lañ sukkandiku ba mënuñoo jël fiche de parrainage di ko jébbal mandataire Ousmane Sonko léegi nag loolu ñun jàngat biñ ci war a am ñun sénégalais yi mooy président Macky Sall dafa décider ne Ousmane Sonko di candidat comme tous les autres candidats mu taxaw moom Macky Sall yoon ni mag Ousmane Sonko am na droit jël ay fiche de parrainage am pour dem parrainer ji comme ñëpp te lii ñuy teg Ousmane Sonko mos ñu koo teg benn sénégalais moom Macky Sall mu ne day taxaw jaay doole ni waa décret des élections bu leen jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am kon loolu li nga ciy jàngate ñoom dañ ne woon Ousmane Sonko dañ koo génne woon ci fichier électoral bi ndax dafa am décision de justice waa ab juge décidé waat ca Ziguinchor tribunal d'instance mais moom sax dafa gën a leeral mbir mi parce que ni na ngeen neenal radiation Ousmane Sonko bonam na ngeen ko dugalaat ci biir fichier électoral malgré loolu waa DG e daan ñoom duñu def loolu parce que dañoo def recours loolu moo doon seen premier argument même bu état defee recours recours bi du ajandi do la le juge ba des ca Ziguinchor tey ñu gis ni tey Sénat mi nga xam ne moo yore élection yi dafa jot requêtu avocat Ousmane Sonko yi ñoom douze yëpp toog réunion xool xam ne Ousmane Sonko dañ koy jaay doole mu ne léegi na na DG jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am mais malgré ça le directeur général des élections Thiendella la taxaw ne lool du ko def président Macky Sall day jaay doole taxaw ne Ousmane Sonko du fi nekk parce que bu demee nekk candidat day gagné loolu leer na ñëpp am na nañ réunion ñun waa Lacoste parce que dañ doon xaar tey lan mooy décision bi nga xam si moom la président euh, moom la euh, directeur général des élections di décider par rapport ak fiche de parrainage Ousmane Sonko parce que Macky Sall xam na ni conseil constitutionnel bu Ousmane Sonko jëlee ay fiche de parrainage am benn conseil constitutionnel mënta tere Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee amu ci benn bu ko mën a tee nekk candidat kooku mooy euh, Dame Mbodj Assane démb ñoom ña nga woon foofu la ca buntu DGE ba léegi nag jëleewuñ fa la leen neex DGE joxoñ na leen fa mu leen joxoñ ba léegi maanaam daal fa mbir may méttee ci biir loolu nag la avocat Ousmane Sonko koy wax ni daal ndax jotul itam Sénat jël ay responsabilité ndax yoon may nag ko euh, mu dem jël fichier yi nga xam ni moom la DGE bañ a jox Ousmane Sonko ñu jox ko ko ndax boo demee ci euh, article 6 bind nañ ko foofu wane ni am na capacité boobu waaw am na solo comme que daam leeral na li si war a leer lépp. article bi na ci lépp ni Sénat am na capacité wu euh, régler loolu le hmm. waaw Sénat moom bu amee capacité régler ko du ko régle lu tax ndax fi nga xamante ni loolu la war a def la def. kon nag wurta arrière di xoolaat la nga xam ne ko si doole pour war ko utiliser pour mën a continuer waat avancer waat ñee. waaw ah, mais lii nii Modou la wan la nii. waaw ko koo da ko koo may. dani bu situation bi tollee fii. Mhm. ci décanté am nga droit di maanaam bind demandé. Mhm. suñ bañee am nga droit nag yow. Mhm. Euh, joxaat mais seenaa nag loolu jëralu leen ko nag. jëralu leen ko jëralu leen ko moom kay comme que seen nañ ba sacrifice jox leen benn bénéfice ñu leen ah seenaa macha allah sa la ñuy yem képp duñ arrière pour doole pour jëfandikoo ko ñee. ñee nag xaj na man ni ma gisee mbir mi yaakaar naa ni ndigal la ñuy xaar kese bu ñu amee ndigal dinañ def li ñu leen sant mooy ñi nga xamante ni dañ leen a wax joxe leen ñu bañ ñu demaat tuuti ñu waxaat leen joxewaat leen ñu wax joxe leen ko waxee rek dinañ hmm, jox ndigal li dama ko xam joxe hélas amee ah, attends xaaral ba xam nga damaa la il faut ma laaj poser question xam nga boo nee joxe ndigal dama naan ku leen ko jox dama ne ki leen war a jox ndigal bu leen ko joxee dinañ ko joxe ñoom DGE dañ leen a fal waaw seenum njàng. waaw ku leen war a jox ndigal. am njàng nag est-ce que si la ñuy sukkandiku bu doon am njàng affaire bi egg si fii su doon am njàng dossier bi bi mu nee bërit lay jeex. Hmm. mais du njàng. léegi leneen la. waaw joxe hélas jox ko jox ko. <laughs> d'accord am problème euh, kii nee na Assane toujours euh, absent euh, noonu Assane ngi fi nekk koo fi yow. Hmm, léeg-léeg ma génn de. yi <laughs> dafa mel ni gars yi ba léegi tàyyeeluñu tànqam lu wuñu ñu ngay toogaanu DG waaye DG ba léegi nee na leen gis ngeen fële mu leen joxañ ni fële la daal fële la muy bu kële pare ca Ousmane ma doog leen a jox seeni fichier wala ma gàntal waaye nag it avocat sàkku nañ ci seen mu jël ay responsabilité am gis nga discours bi dàmbooj def mhm. euh, da gis rek mooy bi ma la waxee ne la seen mouvement bi ñu juddoo mhm. euh, day gën a tàng gis nga discours bi ngeen yaa dégg discours bu mel nii. Euh, boo xamante ni ànd na ak rigueur bii mu àndal. ak euh, kii xam nga àddina. lépp loo gis pareen saay ay lu daf ci war a waaw xam nga tey jii dafa am nit lu muy waxee mooy dalloo nit ñi am nit lu muy waxee. mooy activer waat nit ñi. Mm-hmm. tey boo duggee DGE génn ñu ne la kiiwuñu mm-hmm. nga génn yërëmtalu daal day wax dal loolu day indi ba tey dal ci penc bi. Mm-hmm. mais nga dugg DGE génn wax ji am noo xamante ni benn ton bi tamit loolu day indiwaat. nit ñi activer waat xol yi gën a tàng. parce que am na ñu bari ñoo xamante ni gis nañ ni démb daam ni mu waxee dafa baax parce que li tax mu baax mooy nit ki boo amee naqar. Euh, wane ko ba ñëpp yëg ni. am nga mettit am nga mettit ci li nga xam ne xew na parce que lu warta xew moo xew waaw léeg-léeg nga dis ni saay bàyyi li ngay def waaye sa waay am na ñoo xamante ne bi boo leen di def loolu du ñu bàyyi li ñu def mukk mm-hmm. faaw nga gëtën ngir ñu soog a bàyyi li ñuy def. Mhm. comprendre nga. démb nag defe naa ni gëtën am na ci parce que ni nga xam ne xët-xët googu. Mhm. Euh, loolu genre xëccoo la. xam nga ñii ba léegi ñu ngi topp li nga xamante ni bii mooy mbir mi donc DGE Sénat wax na ko mu bañ. Mhm. tontu ko ci saa si. maanaam tontu bi boo liiree entre les lignes xool tontu beek ni ñu tontoo. dafa mel ni sax DG ñoo ëpp doole Sénat waaw maanaam joxewuñu maanaam ni ñu tontoo ko hmm. te Sénat ñoo leen war a. loolu. boo ah. seetee sax Sénat ni ñu waxee. fu doole waxee ne noonu la kiiwee mais DG dafa mel ni dafa yor beneen force. bu kenn yëgut moo tax ma ne. soit DG xamut boppam wala ñun. xamuñu kuy DG fi mu toll nii. Hmm. parce que taxawaay bii mu taxaw. Hmm. am na beneen force bu nekk. ci DG joxe lañ ko santoon. waa joxe nañ commencement ba ci jeextal élection a mu ci biir. moom kenn seen tuutoon ni problème war na am ci moom. moom mu créé problème bi nag far moom mu mujj doon problème moom solution la woon du woon problème. Mm-hmm. mais moom dafa mujj doon problème dëggantaan maanaam justice day wax mu ne defut kiy wax Sénat wax ko ñu yore organisation kii élection mu ne defuma ba noppi ne du ko def yaa ngi dégg léegi nag. bu njëkk ba dañ doon wax ne nekku fi taxaw ci guddi léegi dem nañ ba dugal ko ci biir yooyu yëpp ñoom it ñu ngi jéem a euh, orienté mbir yi pour jéem a kii mais en tout cas ba ndëgën ni ñu ngi ne ñett joxewuñu mhm. léegi na gars yi jaar nañ fële léegi ñu xaar ba xam Sénat nu mu kii parce que paaka tamit duñ ko jiitu ci mbaram parce que am na ñu bari ñoo xam ne jàppoon nañ ni Sénat du jël dogal di weddi DGE waaw et pourtant def na ko dëgg duma ko jiitu daan ne Sénat du jël dogal pour joxe déedéet damay bàyyi rek xool bañ mbir yi nu mu mujjee nga soog a xam ni kat ah kon def nañ lii bu boobaa nga soog cee mën a am lool waaye dama asan moom comme mooy maire day wax li ñëwagul waaw moom day wax li ñëwagul nee na woon révélation lay ay ci moom ci ay révélation la dëkk donc moom mooy le maire nañ ko bàyyi ak mbir moomu waaye daal avocats yi def nañ li ñu war a def ñi ngi xaar ci kanam ba xam nañ la yëf yi di mujjee incha allah